asalaamaaleykum <laughs> baa ngi leen di siyaar di leen nuyu yéen ñëpp balaa may commencé dafa am ñaari mbir yu moo bëgg a leeral première bi mooy euh, boroom xel yi laay waxal te képp ku fi ñëw pour saboter danaa la bloqué parce que man. ñëw ma fi pour teesante fan yëpp laay fu ma parce que dafa am ci lu ma nekkoon ci loolu ma nekkoon permettre ma woon pour ma wax mais bi ma lijjantee loolu ba noppi c'est normal ma ñëw vers vous pour am mbir yu ma leeral beneen bi mooy ñi nga xamante ni dañoo am ay compte di ma suivre ensuite enregistré sama vidéo pour publier ko si seen page euh, walla si seen seen YouTube muy euh, Jàllal TV walla seen deux cent vingt et un walla lu mel ni euh, Njaay Nettali avertiroon naa leen nee naa leen samay live ku ko mënul publier en entier autorisé wu ma la nga publier ko parce que wax fi mu commencé ba fi mu jeexee ku ko dégluwul en entier du mën a comprendre maintenant avant loolu avant mooy dugg ci kaawu Mollah dama leen di jox benn anecdote euh, ay deux ans ci ginnaaw dama tase ak benn sénégalais sénégalais bi Djibril fay la tudd fii la nekk Montréal biñ tase mu ne ma Ousmane baa ma ne ko waaw d'ailleurs comme beaucoup de sénégalais yu may tasal fii ñoo xam dañuy taxaw bëgg photo ak man wala ñoo xam dañ may encourager wala léeg nga gis ñoo xamante ni dang lay dang leen di xool nga xam ne ñii nii ci beneen camp bi lañ bokk c'est-à-dire ci camp mu Macky ak kanam biñ lay xoolee da xam ne ñii il te déteste ba mais c'est normal parce que combat bi dafa am ay risques te depuis bi ma koy commencé. préparé wu naa xam naa risque yi si nekk yëpp donc je suis extrêmement préparé Jibril mu taxaw waxtaan ak man laaj ma sama numéro d'habitude sama numéro du ma ko joxe mais moom jox naa ko ko après mu woo mais comme man sama noppi du dégg bu baax du ma wax téléphone mais ma répondre ko texte mais su ma ko répondre texte moom du répondre parce que mënul bind mais ba léegi tamit xew bu ma ko. ah j'essaye de communiquer à ma façon avec lui après mu commencé ma fréquenter mais toujours rek damay moytu parce que expérience bi ma am dans la vie permetuma may am confiance ci n'importe qui mais noonu mu commencé ma fréquenter bon man xaw ma ko xamuma mais j'ai vie que amul risque quoi donc on est devenu des amis parce que man bëriwuma xarit xam naa nit yu bëri mais bëriwuma xarit quoi parce que dañ ma ko def def ma ko defaat ma ko defaat ma ko donc damay moytu waa ji invité ma un jour këram na ma dafa togg xaw ma mbaxalu saalum et tout ça naa ñëw c'est des <laughs> affaires yoo xam luñ ko fiy gis bëriwul donc voilà ma ma dem ñu toog ñu waxtaan et tout ça noonu on est ñu am connaissance léegi mu ne ma moom këram moom rek a dëkk ma ne ko man sama kër man rek maa dëkk mais mu ma ñaata ngay fay ma expliqué ko mu ne moom pourtant mun nga ñëw jël chambre bii nii quoi fii nii garaawul ma ne ko yow ñaata ngay fay par weer ma ko amul problème dinaa ñëw di la jox moitié di fay màcce yow ngay fay moitié après ñu bokk facture yi ak yooyu quoi parce que moom foofu mu dëkkoon moo gënoon jege fi ma doon joobee après ma tuxu ma dem foofu ma tuxoo dem foofu néeg bi ma jox. moo gën a tuuti moom néeg bu mu dëkk ba léegi amul problème ça m'intéresse pas man naa yeewu rek am fu ma tëdd yeewu après dem liggéey léegi euh, ñu dëkk ñu sekk jàmm defuma dara defuma ko dara comprendre mais un jour damay wàcc ñëw fekk ñu couper courant bi ma ne coupé courant fii ci Canada nga xamante muy dëkk bi gën yomb courant ci kaw suuf mu ñëw ma ne ko courant bi dafa coupé lu xew après mu mel ni ku hésité li may wax xamul lu muy wax waaw ma ne ko garaawul wax ma rek après si on peut la régler on la règle mu ne ma moom ça fait ay mois liggéeyul que dafa amee ndigg quoi te comme chauffeur la euh, il doit huit cent et quelques dollars ma ne ko amul problème on va payer ça ma yëkkati huit cent et quelques dollars facture bi mu yoral waa waa Hydro-Québec ma fay moo ko fayee la naan demee courant bi ñëwaat courant bi ñëwee ñu toggaat deux trois jours am ku fëgg buntu bi fëgg bu force ma ubbi mu nekk un huissier mu jox ma benn lettre ne ma vous avez trois jours pour quitter les lieux ma ne ko ah bon mënuma ne ko de toute façon le contrat n'est pas sur mon nom moi je sers seulement l'appartement avec je partage l'appartement avec mon ami mais je vais quand même lui remettre la lettre mu ñëw ma jox ko lettre mais avant ma koy jox lettre bi lettre bi dem naa ma photocopier ko ma scanner ko moo am fu ma ko denc si sama ordinateur parce que toujours damay bëgg ay preuve waaw ah, bi mu ñëwee ma expliqué ko xamul lu mu wax waaw mais après mu expliqué ma bi may expliqué mu ne il doit le propriétaire trois dollars ma ne ko am problème on va trouver une solution man ne ko boo ma permettre man dinaa dem ci agence bi ngay xam ne ñoo immeuble bi ma wax ak ñoom mu ne ma d'accord demal nga wax ak ñoom après ba si yàgg sa mun a mënoo bul dem bàyyil man dinaa wax ak ñoom quoi ma ne ko d'accord amul problème mais n'empêche man bi ma wàccee si suuf gis naa ki nga xamante ni moom mooy gérer immeuble bi quoi mooy nettoyer mooy mooy li naan suppa quoi parce que fii immeuble yoo xam dafa bëri ay appartement dafay am un gérant quoi boo xamante ni moom foofu bu problème amee ci immeuble moom ngay woo bu ndox amee problème ndox wala problème mu lu mu mënta am rek moom ngay woo si immeuble lay dëkk d'habitude quoi moo gérer immeuble bi yëpp ko ma dem ci moom laaj ko situation bi mu ne ma il doit deux mille et quelques dollars mais plusieurs fois yóbbu nañ ko euh, devant commission des logements du Québec pour ñu trouver solution mais à chaque fois bu juge bi na ko defal lii defal lii del fayee nii nii nii ba mu jeex du ko respecté. léegi man ma yëkkati deux mille cinq cent dollars ma dem pour jox ko agence bi ma demee ci agence bi ñu bañ quoi ñu ne il faut mu complet mooy wër fu ma lebee pour complété ko mais à la fin ma a garaawul quoi naa dem wut néeg ma dugg sur kii ji di wër néeg mais temps bi dafa xat awma appartement awma néeg fekk foofu ma dëkk ak fi Hannibal Njim dëkk Hannibal Njim yéen ñëpp xam ngeen ko deewagul mu ngi dund bu ngeen ko laajee na leen wax ñetti kër moo ndox man xaw ma woon sax foofu la Hannibal dëkk te pourtant Hannibal damay ñëw këram mu ñëw sama kër ma dëkkee foofu ak Jibril Faye ma togg samay maafe wala samay ceeb ma invité ko mu ñëw ñu loolu mu ngeen ko laaj Hannibal dana leen confirmer lii may wax Ah, may wër néeg wër néeg ba sonn munu ma am ani baal na ma man fi ma dëkk nii dama dëkk ak nit ko néeg rek laa fa am mais sinon ma wax la nga ñëw dëkk foofu ma ne ko amul problème bu inquiété wu sax dinaa trouver solution muy wër néeg wër néeg amuma madame Diop ñëw fekk ñu sele appartement bi sama bagage yëpp ñu ngi ko sandi ci mbedd mi sama sambra couché boo xamante ne presque trois mille et quelques dollars laa ko jëndee Hannibal Djim gis na ko moom bu woon ko laajee mu confirmer leen loolu sama tele sama rideau samay dàll samay yëre samay document lépp ci mbedd mi laa ko fekk d'ailleurs yor naa photo yi dinaa ko publier amatuma fu ma dëkk je suis sans domicile ma jël sama sac benn sac def ci sama document def ci benn jiin def ci ñaari t jël beneen sac def ci sa yeneen document ak ay quelques affaires ma dénk ko Anibal Ndim mu dugal ko këram man ma dem bàyyi sama yeneen bagage yëpp loo ay valeur ay million noonu la ko oto mbalit bi ñëwee jël yóbbu sànni waxuma waaj dara may wër nekk aw ma nekk ma dem ci buntu benn métro foofu laa nekk di fanaan pendant presque une semaine après bi ma trouvé chambre ci internet bi ani baa njëm laa woo mu ñëw si métro bi jël si ma dugal ma ci otoom yóbbu ma Longueuil parce que seen Iber parce que foofu laa trouvé chambre ci benn këru benn haïtien bu ma loué benn chambre ani baa njëm moo ma jël si ci mbedd bi fi ma doon fanaan dugal ma ci otoom yóbbu ma ma dem dëkki ci chambre boobu ma nekk foofu di ñafe di ñafe di ñafe di ñafe ba amaat sama këru bopp ma jënd sama oto nekk ci sama jàmm pour vous diir rek pour vous diir man sénégalais bu ma ko sekkal wor nga ma ma joxaat leen beneen anecdote dama nekk Europe ma nekkee Europe sama neveu sama propre neveu boo xam maa moom dañoo xaw a maase quoi depuis Sénégal ay xarit lañu woon mu nekk ak ak ay sénégalais foofu mais jubóowul ak sénégalais man maa ngi nekkoon Florence moom mu nekk rajo Emilia Papa Samba Ba ok bàcc ah, toujours rek daf may woo di jooy ko naan ma gars yi dañ koy attaqué fii patate patata à affaire bi soof ma mën a ko garaawul man dinaa ñëw dëkk foofu benn instant ñu régler situation bi ma tëj sama kër Florence ma dem rajo Emilia ma ñëw fekk gars yi ci appartement bi moom ñëpp ma sëfal sa ndey wax la lu bon na lan waa ji fii kër gi moom moo ko jël moom moo ko moom yéen soit da ngeen di fay normal soit ngeen génn kër gi ñoom ñëpp ñu génn kër gi police ñëw ñoom ñëpp ñu génn kër gi man ma jël kër gi di ko fay chaque weer ok di fay courant di fay ndox nekk mu nekk ak moom foofu lu ne ma ko koy defal ci kaw suuf après man ma jógee foofu ma dem États-Unis Europe commencé métti Europe commencé métti ba moom mu dem Sénégal bi mu demee Sénégal affaire yi dëgër trop man ma fekk ko Sénégal ko waaw mu wax jooytu expliqué man ne ko am problème ma yëkkati 7 millions cinq ma jox ko ba ma ko ko joxee ma ne ko demal Europe ngay jënd ay oto di ko dawal di ko andi di jaayaat mais chaque instant dama koy renforcer ay cinq cent mille ay un million ay deux millions ba mu nekk quarante millions CFA léegi waa ji commencé lekk sama xaalis moo ñëwee mu moo ñëwee laaj ko sama xaalis mun a ah, ma tey suba client bi kat 4 bi nii problème bi nii doyen nii patati nii ba ma affaire yu soofee ma dem seen kër ma wax ak papam wax ak papam sama frère la ah. ma expliqué ma ma expliqué ñoom dafa mel ni seen doom la ñu àndal quoi ak yaayam ma ne garaawul naa bàyyi mu sedd quoi dinaa lijjanti lii après parce que dama war a dellu États-Unis man daal fi ma toog laa toog sama kër. waa ji ñëw agressé sama ci biir kër gi bett ma xoj ma ba ma seddu guy d'ailleurs médecin yi ne nañ sax loolu peut-être mu yàq sama noppi ko leeru ma am na médecin yu ko wax après ma dem gendarmerie foire ma porte plainte bi ma porte plainte gars yi jël si ko te biñ koy jël si yére bi mu sol jour biñ koy jàpp yére bi mu sol basin wu jasner man maa ko xoteel tabaski xoteel doomam dama ñëw Sénégal fekk seen kër amuñu luñ lekk ma dem boutique si grossiste bi jënd ration jënd lépp ñëw andi ñëw fekk seen courant coupé ma jël sama xaalis ma fayal leen jabaram feebar woo ma deux heures du matin wala doomam feebar woo ma deux heures du matin ma taal sama oto ma dem jëli ko yóbbu clinique wala yóbbu hôpital ñu faj ma génnee sama xaalis ma fay sama propre neveu moo ma def lool biñ ko tëjee sama yaay yuuxu ah affaire mbokk la bàyyil dina répète la boo ko libérewul juróotuma la ma xam ne sama yàlla ma dem dindi plante bi ma bàyyi noonu mais li yàlla di def bi may agressé sama biir kër ma agressé am na caméra mu ngi filmé ok film boobu sax moo tax nit ñi gën koo mere moo tax gendarmerie gën koo bëgg a bëgg a bëgg parce que bi moo ko baalee commandant gendarmerie à l'époque bu euh, gendarmerie Nord Foire dafa kii du moo ko bàyyi noonu c'est un criminel il voulait assassiner man maa ko ne jàpp si rek nga bàyyi parce que affaire famille la sama xaalis noonu laa ko ñàkkee ba tey ba suuba ba gannaaw suba lii ñaari anecdote la rek mais bëri na du jeex man Italie ñëw naa ci gaar fekk fa Sénégalais benn booy lawbe Moussa wala Malick je me rappelle pas mais me pas son nom ko sama kër trois jours plus tard mu vidé sama kër fekk liggéey naa mu vidé kër gi ba mu jeex dama ñëw fekkuma sa mat laa ci biir appartement ba tey ba suba ba gannaaw suba noonu laa perte lépp sama biir am na yeneen ak yeneen nag yeneen nag yeneen ak yeneen lu ma ay nit def fii lu ma ay nit def Sénégal lu ma ay nit def Europe lu ma ay nit def États-Unis mais toujours rek sama m'a permis d'expérience dans la vie mais ba tey ñàkkuma confiance ci doomu aadama parce que xam naa ni nit yëpp yamu ok parce que man tey buñ nee yow criminel la te aw ma ci ay preuve ni nga ñëwee ci man rek laa lay tëy ba ma gis lu tax man ma war la bàyyi wala ma am fu ma la classé ma classé la foofu man du ma déglu lu nit ñi di wax quoi du ma nitu benn nopp ok wala du souvent la may dal quoi du ma dal lu bëri je suis très prudent très calme très très expérimenté dans la vie te eh, dofuma xam naa bu baax lan mooy doomu aadama maintenant pourquoi j'ai expliqué ça je vais vous dire pourquoi c'est juste pour vous dire que Mollah bu mu jógee Espagne dem États-Unis après mu ñëw Canada daf woo maa woo ba sonn jëluma mu bind ma bind ma ba sonn tontu ma mais à j'ai dit mais oui c'est Mollah Morgan kan moo xamul Mollah Morgan surtout man sama génération un grand rappeur ku mën rap ok mais loolu rek laa xamoon ci moom xaw ma woon vie am xaw ma woon parcours am xaw ma qu'est-ce qu'il est devenu dans la vie à la fin ma répondre ma ko répondre ma bind ko répondre ko après mu encouragé ma ma encouragé ko comme ñun ñoo bokk combat bi ma dem ma rencontre ko fi mu dëkk bi ma ñëwee am dama ko fekk mu dëkk ak ay sénégalais ma ñëw il m'a bien accueilli ñu toog ñu waxtaan comme man su ma jàkkaarloo nit ki damay takk benn appareil quoi boo waxee ci kaw dinaa dégg lu muy wax ce jour on a fait un live ensemble mu posé ma ay question ci live ma répondre li ma ci xam euh, après ma ñibbi li ma ñibbee quelques jours plus tard mu bindaat ma ma tonto après ma ñëw jël ko ma yóbbu ko waral ko dëkk bi quoi taal sama oto waral ko dëkk bi et tout ça woon ko explique histoire Montréal yóbbu ko fu bëri quoi su ma soxlaa mu woo ma ma sama oto ma ñëw jël ko ma yóbbu ko mu dox soxlaam après ma déposé ko léegi bu yàggul mu tuxu dem dëkk feneen quoi loué beneen chambre boo gën a jege dëkk bi fa su mu dëkkoon dafa sori léegi ci biir loolu mu. ne fan la ñuy mën a lekkee affaireu ceebu Sénégal ko restaurant nekk Côte d'Ivoire sunow mu lekk dibi man maa ko fay à chaque fois bu ñu lekkee bu ñu àndee mu yóbbu ko ñu lekk man maay fay sama xaalis ma ne moom dinaa fay soixante di dollars trente-cinq mille la loolu xeej na ci sama doom xeej na ci sama poos léegi dernière fois bi ñu gisee ci sama béru oto ma commencé benn live ñu wax moom mu wax mu expliquer position man may expliquer sama position calmement rek mais moom mu ngi yuuxoo et tout ça mais ba léegi tamit moom la rek c'est sa façon de parler aw ma lu ma ko ciy wax loolu c'est sa façon de parler dama koy respecter mais li ma surprendre ci lool te jour boobu fi moo ko doon yóbbu si ci Jemé Landiatta Jemé Landiatta moom moom Afrolac un grand patriote ku bëgg Ousmane Sonko koo xamante ni événement yu bëri fii Montréal moo koy organiser di si def xaalisam di dem devant ambassade Sénégal bu Ottawa di fa manifester pour sénégalais mun a am seen passeport ak yeneen ak yeneen ak yeneen grand bu ma respecté comprendre mu ne ma Mollah gis naa ko quoi yéen ñaar ngeen live duo bu bien c'est bien ça man xaw ma ko quoi j'aimerais la connaître ma ne ko amul problème naa la ko présente je l'ai di à Mollah ma jox Mollah numéro grand bi jox grand bi numéro Mollah après man maa ñëw jël si Mollah dugal ko sama oto pour yóbbu ko mu rencontré grand bi mais biñ fa njëkkee dem dañoo fekk mu teg après deux jours plus tard ma ñëwaat jël ko yóbbu ko mais. waa ji da doon waaj parce que 19h lay tëj mais jour boobu mooy bi ñuy def suñu deuxième live bi si sama bureau oto bi ñëwee ba jàkkaarloo magasin bi ma ne ko da ngay wàcc man ma wut parquet mais moom dans son live dafa wax ni man dama ko bëggoon piéger mais utiliser leen seen xel bu baax piéger moo la pour lan pour quelle raison est-ce que man su ma laa wàccee man ma continuer sama live est-ce que li may wax ci live bi. après dafay effacer ci vidéo bi wala après sénégalais yëpp dinañ ko mun a gis dégg ko ba mu saf ba mu saf benn mola this doesn't make any sense amul sens nit da ngay utiliser sa xel quoi parce que man tey maa ngi ni di def live est ce que mola dafa nekk sama wet est ce que mën na maa tere wax lu ma bëgg a wax voilà loolu aussi utiliser seen xel juum na man aw ma benn intention piège ko mola intention bu baax rek laa amoon ci moom quoi moom ma woo envers lui ma répondre te ba tey musuma koo def lu ñaaw musuma koo wax lu ñaaw musuma sa tudd turam ci samay life parce que moom intéressé wu ma man Macky Sall mooy suma problème te bi ma commencé live ba léegi lépp lu ma wax sénégalais yi teg nañ ci seen bët ok on va continuer maintenant ci biir ay live am accusé na ma Ndem Babacar Ngom daf maa jox xaalis man Ousmane Ba sama loxo ci alxuraan amul benn doomu aadama boo xam yaa ngi yeewu ci kaw suuf mun ngaa génnee ay preuve yu wane ne Babacar Ngom jox na ma xaalis ça n'existe pas xaw ma ko sax encore sur le cas de Babacar Ngom ok mais balaa ma ci dugg je veux juste vous dire que Mollah lii mu def ni daf koo préparé ça a été prémédité dafa préparé affaire bi yëpp da koo préparé quoi parce que c'est un rappeur boo xamante ni il a joué e sa vie quoi tu vois amul dara lu mo lu ngeen di gis Sénégal ñu li Mollah moo ko réalisé amul dara lu mu réalisé ci ko suuf maintenant il veut revenir sur la scène musicale ci sama kaw la ko jaar ci man la jaar pour bëgg a yeegaat ba tey d'accord na amul problème ba tey baax na amul benn problème mais ñaari mbir duma ko accepter mooy accusation ak diffamation léegi ci biir loolu dafa téléphone gën tës gën tës man xaw ma ko dama ko daan gis ci télé yi xaw ma qu'est-ce représente parce que il m'intéresse pas ok mu ne ko Ousmane Ba moom moo commandité sa agression Sénégal Benoît Sadio bi nga xam moom moom moom restaurant Njolo fii moo ma fay pour man ma woote Sénégal pour ay nit agressé ko utiliser leen seen xel tuuti ah dama bëgg ngeen seen xel man li ma sama na nafa def li ma yeneen nit def senegal li ma waa def fii ak yeneen nit yoo xamante ni def nañ ma lu gën a garaaw Sénégal su ma demee ba am capacité ak moyen wu fay nit pour ñu agresser nit ñooñu laay peut-être fay pour ñu agresser leen parce que ñoo ñëw ma tooñ lu tax may fajal Benoît Sadio lu tax ma koy fajal soxlam ma koy fajal problème am ak gëntas te man ma am ay problème ak ñeneen loolu rek ku am xel di xalaat war ngaa xam ne du wax bu taxu léegi ci biir lool gëntës def live bind dul sama tur ci live mais ni mu waxee man lay waxal après li mu bind ñu ne un certain activiste buy vanté wu bu tudd bu nekk Canada bu tudd OB ban activiste bu nekk Canada bu initialam di commencé OB bu dul Ousmane Ba que man maa commenté agression wu euh, gëntës Sénégal ma def capture d'écran yi enregistré vidéo bi ma bu police ma laa aussi dafa def benn vidéo di ma menacer na ma dama lay rey léegi dam sama yoon te comprends ma enregistré vidéo yëpp bind sama plainte ànd ak sama avocat dem wax ak moom explique ko mu orienté ma defar lépp ma dem police ma déposé loolu moo tax fan yii yëpp déggu leen ma ma live par que chaque jour maa ngi woon police inspecteur yaa ngi enquête ñu ngi mooy poser ay question laaj ma ay preuve léegi document bi mu ngi devant le juge document bu nekk devant le juge nag man du ma ci commenter lu bari quoi parce que tout ce que je dirai ci sama vidéo ci mbiru doge ci mbiru Mollah peut être utilisé contre moi mais je veux juste vous expliquer que Mollah ci boppam pendant quatre ans Faux Malade hébergé ko këram da ko jox muy lekk da ko jox mooy naan da ko jox xaalis transport bu muy demee ville sax Fou Malade moo koy jox lu mu yàqul Fou malaat amul lu ne yàq na ko Fou Malade la gars il a problème avec tout le monde nitu démbam yépp attaqué na loolu baaxul man ñi ma doon àndal bi ma nekkee xale ba léegi ñoom laay àndal ba teg man Ousmane Ba ma dalay wax ba léegi képp muy man Macky Sall wax naa moom wax naa fi ay ministres yu dul jeex wax naa fekk ay magistrat yu dul jeex wax naa fi ay journaliste yu dul jeex wax naa fekk ay milliardaires yu dul jeex wax naa fekk ay marabu yu dul jeex depuis trois ans et quelque amul kenn ci ñoom koo xamante ne tontu nga ma amul ça n'existe pas ba adduna du tukki kenn ci ñoom du ma tontu kenn ci ñoom du weddi man la ma wax léegi kooku la Mollah de attaque kooku la Mollah di accusé ça veut dire que moom li mu def xamu ko sax man duma ma duma du ma ku ñuy attaqué il a touché nag leen touchable laal na ko xamante ni kenn du ko laat un manipuler na nit yu bëri ñoo xamante ni seen xalaat sorewul ñoo xamante ni lu ñu dégg rek la ñuy gam manipuler na jeune Pastef yu bëree bëree bëree bëree bëri ñu may saaga et tout ça amul benn problème euh, peut-être bi ma def wala peut parce que damaa coupable rek ci la ci ci trop ak si aussi soutenir ko visiblement peut-être aussi loolu mooy sama erreur quoi peut-être aussi je devais pas le faire quoi mais comme j'ai dit rek euh, peut-être aussi am na ñoo xamante ni li leen metti mooy li ma ne sama ànd ak Sonko jeex na je vais vous dire une chose Ousmane Sonko ah voilà avant ma yegg si ci lool Bernard Bernard Sadio bi am problème. ak Gëntas lu andi seen problème ñoom ñaar dañoo doon collaborer nak ay partenaires di organiser ay soirées sénégalaises ak ay événements di jëlee ay artistes Sénégal di leen andi fii loolu ñoom ñaar la intéressé ils ont eu des problèmes ñu séparé wu après ku si nekk excusez-moi porte plainte sa moroom ak yooyu yëpp intéressé wu man du sama problème Bernard on n'est pas amis man moom du ñu xarit nañ toog 4 5 mois. du ma ko gis du ma ko dégg mais dinaa dem restaurant am dafa lekk te su ma ko fa fekkee effectivement dina génn ñëw toog nuyu ma waxtaan ak man comme beaucoup de sénégalais yoo xam bu ñu ma gisee ci mbedd mi ils font la même chose lu Bernard di def ci man te ban sénégalais mu vivre fii Sénégal te xam du Bernard sax Edmond loo tudd gis nga man maa ngi fàtte sa turam il s'appelle Edmond Edmond Sadio loo tudd quoi Edmond Edmond ban sénégalais buy vivre Montréal moo ko xamul ñëpp ko xam. ñépp a ko xam vous comprenez mais on n'est pas amis te am naa ay preuve yuy wane ni on n'est pas amis moom ci boppam il l'a confirmé ci ay vocal loolu yépp mu ngi ci loxo police tu vois euh, Mollah dafa def erreur bu mag a mag a mag a mag a moom si veut revenir dans la scène politique wala bu ko jaarale si Sonko wala bu ko jaarale si sama kaw def na erreur bu mag parce man vous pouvez beaucoup l'aider pouvez beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aider. de e c'est ce que j'ai fait. J'ai été très honnête envers lui depuis le début. léegi nag man ak moom ñu ànd ba ma déposé ko këram ba may ñibbisi mu def live dama attaqué. Akhenaton moo ma ko wax ñu toog ba si ak keneen wax ma ko keneen wax ma ko ma ne comme de dix personnes wax nañ ma ko naa euh, naa ko woo quoi ma wax ak ma woo ko ma ne ko moo laa mun ma wax ma ne ko lan laa la def ba may attaqué. amoo benn raison pour attaquer ma man je ne suis pas ton ennemi la dara waxuma la dara mu commencé naan non attaqué ma la ma envoyé ko capteur d'écran wu Akhenaton ok c'est vrai que Akhenaton yóbbu naa affaire bi fu mu yegul quoi comprendre nga la fin man Akhenaton naa fekk la rek seytaana la quoi yi baaxul kenn du def yi quoi ma bloqué Akhenaton dama ko que Akhenaton tey bu ko Sénégalais yu bëri xamee c'est grâce à moi. man maa ko njëkk a si sama live ñi may seetaan depuis longtemps xam nañ lool maa ku njëkk a si sama live les gens ont dit il est très pertinent parce que li muy wax da ko maîtriser nekk moom yoon la bëggoon am fu mu jaar pour ñi ñi xam ko à la fin bi ma xamee ne dafa jàpp suñu marabu yi di leen saaga ak suñu kilifa diine di leen saaga dama arrêté sama diggante ak moom lu su bëri parce que maa ngi mun daf ma doon bind dama ko mujjee jox sama numéro muy bind et tout ça mais xaw ma lan mooy combat wu man comprendre ma ko quoi comprendre moo parce que mën nga mënee sa combat te doo fi saaga benn kilifa dina doo fi manqué respect benn tareexawu jàmbur ils ont aussi dama me coller d'insulteur de marabouts nga jékki-jékki gis ay ay ay ay ay article yu dul jeex ci internet bi ñu wax ne arrêté nañ ma Gabon def ci samay photo fekk du man beneen Ousmane la tu vois mais en ce moment ñu si bëri ñoo xamante ne man dama leen di déranger dañoo woo Mollah si suuf di ko ruux muy wax di yooxu di def ay comédie ñi ñi di ko tàcc mais en ce moment ni ñooñu di ko tàcc ñëpp ils verront pas devant le juge fii au tribunal défendre ko d'ailleurs xaw ma ndax arrêté nañ ko wala arrêté wuñ ko mais je sais que police dem na këram man loolu xam naa ko de say ko soit dañoo war a saisir passeport am du génn dëkk bi fekk projet bi jeexul wala pour mu génn dëkk bi dina joxe benn caution pour mu génn dëkk parce que moom dëkkul fii Espagne la dëkk te même mu demee jour audience bu présenté wul juge bi dina def liggéeyam te bu fekkee moom moo gañe man dinañ ma condamné bu fekkee man maa gagné moom dinañ ko condamné te billahi un million de dollars dina ma ko fay man maa ko wax bu fekkee man maa man maa gagné bi te affaire bi. dinaa dinaa ko topp ba Espagne parce que fii fii dëkku yoon la ko fii munoo jóg ngay accuser ay nit wala di menacer ay ay di def ay ay menace de mort fii il pas avec ça ba àdduna di tukki dootul tudd sama tur ci laay fam tu vois maintenant maintenant euh, Ousmane Sonko ba tey moom sama président la fii ba jant bi di so Ousmane Sonko mooy sama président moom Sonko sax mënul dindi loolu mënul ci dara vous comprenez parce que ko man maa ko choisiral sama bopp man maa ko bëggal sama bopp mais encore une fois man sama baay bi ma jur sama baay bi ma jur amul woon fitu na ma doo wax man képp ku ma xam xam na ni sama liberté d'expression jaral na ma sama bakkat parce que man aw ma xam-xam aw ma alal aw ma ay immeuble aw dara lenn laa am mooy sama liberté d'expression te loolu kenn du ma ko xañ kenn du ma ko tere wax léegi Ousmane Sonko encore une fois ñi fi nekk ñëpp mooy san baay ci politicien ñi fi nekk ñëpp moo leen gën a këlin loolu d'accord nañ amu problème mais n'empêche si je ne suis pas d'accord avec lui ci benn sujet wala je ne suis pas d'accord avec ses cadres ci benn sujet man am naa droit wax ko loolu man maa moom moom sama bopp et de le dire avec respect avec considération amul problème léegi Ousmane Sonko en tant que syndicaliste en tant que wu état muy wax ci ni état bi di doxalee yee mbëri mu ciy wax état bi na ko doo ci wax mu na dama ciy wax état bi na doo ko fi waxee mu ne force damay wax état bi rajee ko dàq ko Sénégal yëpp métti ci loolu ñëpp merci mu merci ñëpp merci Ousmane Sonko am ku créé am ku créé parti woo ko ci wala moomu mu créé parti wala ay xaritam créé mouvement wala lu mu mënta doon mu woote ñun ñu métti lu ko Sénégal def ñu wuyu ok ñu wuyu si ak moom soutenir ko imagine déglu leen bu baax la may wax tey kooku noonu nga xam ne liberté mu la doon défendre ba état bi jógee ko fi jëlee ko fi ba état bi toroxal ko en tant que père de famille ñu rajee ko salaire dagg léppam dagg ñun ñu jël suñu xaalis di ko ñu jël suñu xaalis participer ci ay lu muy woote ay ay campagne ay conférence ay billet d'avion ay logement wu hôtelam bu demee àllan lépp ñuy participer suñu xaalis lu tax parce que daf ñu ko jaral parce que on a une conviction bu leer ni kii bu ñu ko joxee réew mi il va changer les choses ñun dara intérêt suñu Sénégal changer xam nga man je l'ai dit plusieurs fois man fii ma nekk ci Canada man fii dama fay nekk en règle lu ma fi clandestin ok fii maa ngi tëdd tranquille fii maa ngi liggéey fii maa ngi lekk maa nga naan fii su ma feebaree dañu may faj gratuit fii su ma liggéeyul ñu fay ma chômage fii aw ma problème donc si on se bat pour les choses changent pour que les choses changent c'est pour la majorité des sénégalais qui sont restés au pays ñoo xamante ni amuñu nijaayu ministre wala ñu amuñu papay député wala amuñu dëkkandoowu directeur agence bu leen mën a jox liggéey ñun pour yéen lañ koy defal mais pas pour ñun une heure de temps bi ma toog fii de live wala deux heures de temps bi mun naa dem léegi léegi am fi quarante dollars minimum vous comprenez vingt mille CFA la am na lu mu mën a faj man Ousmane Ba bi ma dalee wax ba léegi lépp lu ma wax te ngeen ci seen bat am na lu gaaw comme am na lu yeex comme am na lu jël temps te pourtant je suis à huit mille kilomètres de chez am ay journalistes yu nekk sur place yoo xam man la ñuy xaar ma publier pour ñu am ci lu ñu wax am na journalistes yoo xam man la ñuy bind en privé ma leen jox ay information ñu koy ñu koy publier ci seen journaux comprendre nga fan yii rek yàggul ils ont arrêté Khalil parce que dañoo wax ni dafa am connexion ak man dañoo wax ni man moom da ci échangeante tu vois euh, pour te dire que man gouvernement moo ma ragal man ministre moo am moo tiit ci man man ay magistrat ñoo may laalee bant bu gudd man ay ponkal ñoo may laalee bant bu guddoo guddoo guddoo guddoo guddoo wax mais pas Mollah Mollah est trop petit devant moi et moom loolu xam na lool ku am xel xam na loolu léegi nag Mollah mënul nekk di jàppale Sonko man may jàppale Sonko ba pare mu muy bif quoi dema attaqué loolu amul sens quoi comprendre maintenant ma retourné ci affaire Sonko bi nga xam dañ ko tere woon wax mu ne dafay day wax force léegi la même chose man la ma Pastef di nekk di def ni ñu ne man waruma wax et pourtant ñoom loolu moo tax ñu créer seen parti tey ñoom ñoo waroon gën a défendre sama liberté d'expression tout ce qu'il devait faire c'est de me répondre na ma ah woy am nga droit wax sa xalaat nga wax mais bon ñun nii lañ ko gisee ak nii ak nii ak nii mais di envoyé seeni booy wala ay booy di jël seen propre initiative dama accuser et man je sais li ma mën a defal Sonko li ma mën a defal Pastef cadre yu bëri ñu ngi biir Pastef mënuñu koo defal Pastef moi ce que j'ai déjà fait pour Sonko ak Pastef Mollah munu ko Mollah lan la mun a importal euh, Sonko la xolal ma rek la rek la Mollah mun a defal Sonko à part chaque jour nga live deux trois fois ce jour bi di répéter les mêmes choses di yuuxu di saaga di andi ay problème man duma live fee noonu je l'unique kuy live koo xamante ne du live chaque jour ah toog ay jour ay semaine ay mois duma live parce que munoo nekk di def ay recherche ba pare maîtriser ko sujet bi nga bëgg cee wax man du ma fonctionner noonu rivaler ak kenn plusieurs fois j'avais dit que damay arrêter live mais si je l'arrête en ce ma les gens vont dire peut-être li li moo laa wax dëgg la mais dara du ci dëgg te bientôt vous serez édifié bientôt vous serez édifié man maa leen ko wax bu comprenez euh, il faut nit ñi delloo si seen xel il faut nit ñi delloo si seen xel il faut nit ñi delloo ci seen xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax man à chaque fois ma critiquer qui que ce soit waxuma la attaque day attaque moom damay attaqué lu ma si am damay jël mais quand je critique ay critiques yu objectif la yu positif la ay critique la yoo xam du sa critique ay conseil la quoi mais bu fekkee da ngeen wax ni kenn doon wax si Sonko que kenn du wax ci cadre Pastef que kenn du wax si Pastef loolu dafay ragalloo sa ñoo xam ne il voulait adhérer parce que ça ne fait même pas un mois bokkoon naa si seen idole bokkoon naa seen héros ba tey ngeen bëgg ma jël def ma seen ennemi numéro un loolu dafay ñaaw sax rafetul tu vois tey yeneen gars yi bokk ci yeneen parti naa ma voilà gis nga ñi nga doon jàppale ñoom ñoo lay saaga tey ñi nga doon jàppale ñoom ñoo lay attaqué tey quoi jaru ñoo jàppale peut-être benn instant dama surrus quoi dama am lu ma metti quoi dafa mel ni voilà dama dama ça se voit même si sama kanam que affaire bi dafa ma metti quoi ça me fait trop mal mais amul problème amul benn problème ci kaw dafa bëri ay golo danaa ko bàyyi golo yi naa continuer sama liggéey si suuf mais il faut ngeen def très très très attention très attention ci ñi ngeen di déglu très attention ci seen comportement très attention ci li ngeen di def parce que su bëri ñu nekk ci internet bi di saaga ba pare naan Sonko la ñuy jàppale Sonko la ñu gëm mosu leen dégg président Ousmane Sonko fu mu saaga benn nit mosu leen dégg président Ousmane Sonko fu mu respecté manqué respect benn doomu aadama musul am te du ngeen ko mës a dégg ba àdduna de tokki donc bu fekkee kooku ngeen gëm te ngeen bëgg ko jàppale dangeen ngeen koy roy même comportement bu mu am ngeen war a am parce que bépp militant wu Pastef bépp militant wu Pastef yaa xam âge boo am yaa xam foo nekk ci kaw suuf te représente Ousmane Sonko ñit ñi Ousmane image Ousmane Sonko la ñuy xaar ci yow ñit ñi comportement wu Ousmane Sonko la ñuy xaar ci yow ñit ñi ah dëkku Ousmane Sonko la ñuy xaar ci yow nit ñi li ñu gis ci Ousmane Sonko la ñuy xaar ci yow léegi boo ñëwee nag montrer le contraire ça veut ko yow yaay ennemi Ousmane Sonko numéro un. mais lii may wax ni ñu bëri mënuñu ko comprendre nañu yàlla bàyyi fii ba ci kanam bañ dem élection locale yi après di ngeen ma wër fu ne ci monde bi te du ngeen ma gis parce que man du ma waxantu man sama analyse su ma analyser ba tag ba wax la bu fekkee borom xel nga di nga bàyyi xel bu baax ci li ma la wax. bu baax ci la ma la wax léegi nag affaire Mollah man duma ci sori parce que dossier boo xam mu ngi devant et pendant le juge duma ci wax lu bari duma ci wax lu bari mais moom ak géntës ñëpp porte naa lan plainte fii te billaahi wal bi mu yéex wala mu gaaw et vont répondre parce que force dañuy répondre parce que ils moo mag ils m'ont accusé et ils m'ont menacé de mort te man loolu duma ko seetaan duma ko bàyyi quoi du ko bàyyi léegi nag ñoom ñii ñëpp di ratatati li Ousmane Daba def pour la Sénégal ñoom amul kenn ko ci def te ba adduna du tukki kenn du ko def ci ñoom man ci sama génération laa la wax ñi ma maasal li ma def Sénégal amul kenn ci ñoom koo fa def adduna du tukki amul kenn ci ñoom koo xam ne dina ko fa def te preuve yaa ngi fi mais loolu yëpp amul solo combattre Euh, pour le développement de ton pays dafa bëri ay façon man yeneen façon laa ko doon defee après ma ñëw ci ci ci ci réseaux sociaux yi di ko def en live pour ñëpp di dégg quoi euh, mais dama koy bàyyi parce que c'est très très très très difficile pour nga convaincre koo xamante ni bëggul dégg bëggul gis bëggul comprendre tu euh, mais mais mais mootu leen mootu leen parce que Pastef am na ñoo xamante ni soxlawu leen quoi soxlawu leen vraiment soxlawu leen soxlawu leen amuñu benn euh, benn lu ñu mën a rajouter lu important pour Sonko amul amul amul te Ousmane fi mu féete woon Sonko man Ousmane Ba fi ma féete woon Sonko ak Pastef du mën a kenn mënuma remplacer mais lu jafe lay doon te li ma leen di wax teg leen di ngeen ci tagal seen bopp seen bët parce que ñu si bëri ñi fi live chaque jour ñu ngi live chaque jour ils répètent les mêmes choses chaque jour dañuy yuuxu chaque jour dañuy saaga chaque jour dañuy attaque comprendre parce que les gens ils disent peut-être damaa changé ka peut-être dañ maa korom tey laa gën a bañ mag tey laa gën a bañ mag tey laa gën a bañ mag magi ku bot la ku yees la loolu ñu ñëpp xam nañ ko man bu ma doon korom su may accepté xaalis maa ngi koy accepté ca jamonoy élection yi duma xaar ba tey ba toll fi pour de ak sataxaar léegi ñu su bëri ci ñoom nag il sont là di ratatate pour suba bu Sonko jëlee pouvoir bu ñu am lu ñu leen dénk wala pour ñu am yenn privilège yi man man waruma dara man je cherche rien du tout euh, c'est c'est dur de parler de soi quoi bugguma di wax ci man quoi mais ñi ma xam xam nañ man maay kan bu baax a baax peut-être ci kanam dangeen toog ci télé di gis sal seen bopp wala di dégg comme na ngeen comme na ma ko daan defee ci ay at ci ginnaaw rek on va continuer la boulot léegi si suuf tamit la ma daan def di di di ci Sénégal la ma daan doon def loolu naa ko continuer def moo laa si la tey intelligent du tudd sama tur koo xamante ne président de la République moom lay muslu koo xamante ne un gouvernement moom lay muslu koo xamante ne ay marabu yu mag moom la ñuy muslu koo xamante ne ay multimilliardaire moom la ñuy muslu koo xamante ay magistrat ak ay ministre ak ay journaliste ak ay avocat ak ay ponkal dëgg ay franc-maçon yu gën a mag moom la ñuy muslu yow nga ne danga koy attaqué ça veut dire que soit wëru wala te mal conseil wala am na leneen looy wër loo xamante am doo ko am quoi doo ko am doo ko am léegi man ma laa yéenewu ko dara lu bon man lu ma ko yéene yàlla lu bon yàlla naa ku ci jiitu aw ma problème boobu quoi yéenu ma man yéenu ma benn doomu aadama lu bon comprendre nga mais du ma nangu benn doomu aadama ci ko suuf mu manque ma respect loolu suñu waa kër xam ko suñu waa koñ xam nañ ko képp ku ma musa sekkal xam nañ boobu fulla ci man comprendre noonu nag la sama xol tooyee euh, mënuma gis nit muy sonn sama kanam quoi loolu moo ma sonal nii ni nii ay nit dañ may bind si suuf di ma wax sama problème may génne sama xaalis di leen jàppale di leen may wala di leen orienté wala di leen boole ay nit pour ñu mu trouver liggéey c'est des dizaines ou même voire des centaines vous comprenez euh, mais loolu la plupart du ma si am lu ma neex mais mais mais amul problème c'est la vie moo mel noonu quoi man yàlla moo ma sàkk ba pare jox ma mission mission boobu noonu force dama koy accomplir mu neex ma ak mu naqari ma dama koy accomplir quoi peut-être façon bi ma koy accomplir moo moo moo moo moo mooy def différence quoi vous comprenez mais yëpp li ma ko yóbbee mooy li ma wax sama position ci affaire u kaawu sédiment bi ak Ndingler mais li ma waxoon démb moom laay waxaat tey moi je j'avais dit que euh, Pastef porte porter combat yëpp que Jomaay euh, ni mu gérer affaire bi waru ko woon gérer noonu neexuma te am naa droit wax ci sama xalaat léegi nag en Afrique du Sénégal rek mais en Afrique en général bu milliardaire amee problème ak baadoola ñëpp baadoola bi la ñuy àndal c'est normal c'est logique c'est même automatique mais surtout pauvre pauvre la plupart pauvre lay jàppale quoi ok man pauvre la mais jàppalewuma sédiment jàppalewuma paysan yi mais dama nekk ci côté dëgg c'est très difficile nag pour ñi ñu comprendre ko quatre-vingt-dix pour cent sénégalais yi ne pour pas la comprendre mais au moins am na 10 pour cent yoo xamante ni dinañ ko comprendre xam nga Babacar Ngom encore du ennemi sénégalais am na ay journalistes am na ay press ah la certaine presse am ay certains activistes yoo xam bind nañ ay bind ñaaw yoo xam bind nañ ay article accusé ko de gauche à droite mais ñoom ñëpp Babacar mënoon na leen porte plainte sonal leen trop parce que am na xaalis pour lool ñuy jaabante tribunal la fu kenn xamul mais il l'a pas fait nee na baal na leen nee na baal na leen ko déjà loolu rek victoire la bu rëy ci moom maintenant paysan wu Ndingler yi man waxuma nekku ñu ci dëgg de ñoom ñu ngi ci seen dëgg mais Babacar tamit mu ngi dëgg dëggam quoi léegi nag ñaari dëgg ban dëgg moo ci am dëgg loolu du man maa koy décider loolu du yow mi may seetaan yaa koy décider mais loolu état moo koy décider gouvernement moo koy décider en réalité histoire bi yëpp problème bi yëpp nii en xew ci affaire Ndingler leer ak Babacar lépp état bi mu fautif parce que bu fekkoon dañoo am état bu jub état bu correct état bu nangoo liggéey Sénégal benn problème mu suuf du am benn problème mu suuf du am d'ailleurs tey état bi ci boppam moo doon dem vers les paysans pour wax leen ñëw leen ngeen régulariser seen suuf ñu defal leen ay kayit mu leer mais on netat un état vague un état bandit boo xam ne bëgguñu mettre ay mécanisme pour protéger peuple bi bëgguñu mettre ay mécanisme yoo xamante ni maguy dootul am ci mbiru suuf bi wala ci yeneeni mbir parce que buñ ko defee ñoom ministres yi kenn dootul lekk kenn dootul naan tu vois dootuñu mun a sàcc donc ils ont fait exprès bàyyi affaire yëpp mu mu informel comme ça comme ça bu ñuy def seen maguy dañ koy def te du am trace parce que bu ñu demee ba foncé wu Sénégal kenn informatisé wu ko mu nekk ci ay registres te ak ak ci ère technologie bi ñu toll ni ça veut dire que on n'a pas des gouvernants yu mérité seen place bi ñu nekk en ce moment man loolu laa kas chaque jour ci samay live li may kas intérêt wu sénégalais yi moos nag aussi te c'est que ay Baba Aydara ay ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ay Pastef lañ bokk seen nekk fii Canada la may wax ci ñoom neexu leen quoi parce que damay damay feeñal seen i magu tout le temps quoi comme ñoo ñëpp ils ont allé renforcer ruux mola muy ratatate di wax rek fekk ñu ngi koy dugal parce que tey devant le juge ñooñu ils verront ils verront pas pour défendre ko parce que amuñu benn argumentation wala benn preuve buy wone ni que waa ji moo nekk ci dëgg est-ce que voilà moo tax ñu bëri imun di retirer plainte bi fii ay nit yu nekk fii sax mais du ko def billahi wal kitaabi du ma ko retirer parce que il faut mu leer léegi bu ñu demee ba lépp leer nag bu boobaa man mun naa des de ma baal ko wala ma bañ koo baal comprendre léegi foofu waxuma li ma bëggoon wax yëpp mais foofu rek laa la laa bëgg a yem te dootuma laay féeg cas bi jeexul dootuma laay féeg juge bi décidé wul juge bi décidé ba pare nag danaa dellu si waat live won leen jugement bi bu fekkee man maa tooñ naa leen won bu fekkee moom moo tooñ lu mënta xam naa leen won maintenant yal na leen yàlla sàmm seen dëkkee ngi noonu yéen a ngi noonu euh, gérer leen yàlla yàlla na seeni na mbir baawan yàlla na leen yàlla jàppale yàlla yàlla na li ngeen bëgg ci Ousmane Sonko yàlla na leen ko yàlla defal ok mais bu leen fàtte li ma wax rek mooy yéen ñëpp euh, Sonko ngeen di représente waa Pastef laay waxal militant Pastef fi laay waxal donc mel leen ni mu mel comporté woo leen ni ngeen comporte man li ma sëkk ak moom instant bi moom mooy bu vote jotee fekk changé wul position bu jot jotee madame ma votal ko loolu nëbbu ko kenn loolu laa sëkk ak moom quoi aw ma leen lu ma sëkk ñoom wala ak moom la may def si suuf nag. danaa ko def si suuf koa loolu moom danaa ko def si suuf damay def si suuf moom kenn munu ma ko tere si suuf parce que maa ngi koy def boobu ba léegi maa ngi koy def ba tey maa ngi koy continuer de ko def bu neexee yàlla jaa jëf.